ma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 Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gu mu doonoon sëtub Cheikhul Khadim liggéey liggéey yu rëy rëy ci yoonu murit Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gi mu doonoon liggéey kat àddina bépp xam loolu ci moom Sénégal dootu ko fàtte ngir doon gi mu doonoon patriote panafricaniste bu bëggoon am réewam kooku lañ fas yéene dugg ak yéen ci ak dundam muy Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir Serigne Moustapha Bassirou Mbacké

jaxate mi nga xamne mok moog ahmadou asta mi jur sëriñ am satu ño bokk wenn way jur muy kon diggante bi, moy diggante bi sëriñ mustapha bassirou génne ñu gis ne kon dafa judd ci lislaam namp ak murit biñu ko taxawoo ba mata dal sëriñ mudu mustapha mbakke turandom dalal ko alquran jébbal ko sëriñ daam abdourahman loo mu jàng fa ab diir ñu door koo jébbal sëriñ ibra bint silla mu am fa ab diir ñu soog koo jox nijaayam sëriñ mawlud jaxate fa la matule alxuraanam fa la sëriñ moustapha mokkale mokkal gu rafet def ni ay nawleem def bind ko mbind mu jub mu rafet mu aw yoon ba mu ca noppee nag sëriñ Basiiru baayam jébbal ko ki nga xam ne mu di sëriñ Habibu Mbakke moom sëriñ Mbakke Kajoor imaamul allaama mu jàngal ko lépp lu ñuy xam mu gis ne sëriñ Basiiru def na li sëriñ Tubaa waxoon ne moom lañu war a def njaboot bi njaboot dañu leen di teg ci yoon mooy tax bu ëllëgee ñu mën a tege ci yoon wa minhu tarbiyatuka al awlaada li koy kay yanaalu baxdaha rasada loolu nag la sëriñ Basiiru Mbàkke def ci sëriñ Moustapha ba mu ci sëriñ Abibu la dellu ci loxoy sëriñ Basiiru Mbàkke mu yaral ko boppam yar bu rafet boobu nekkoon ci moom nga xam ne moo rafetaloon aw doxalinam ci lépp ak ci képp ak ci fépp وهو قدير فاكرم به ربا نما عني الرداء وساق المالي والجناب أخير nee na ku bëgg diine lislaam la la tàmbalee ci yonent bi ak saaba yaa naw nag moom ba sëriñ Tuuba ba ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal jamono kenn ku ci nekk gëstu na la nga xam ne lii ne moom nga doon jëf ci lislaam ne di la ca kañit bu baax di ko feeñalit bu baax di la ko taggalit bu baax mel ne koo xam ne kii danga ngaa dem cib toolam di ko bayal ci toolam ne képp koo xam ne kii la liggéeyal nga lislaam loola la lay jàppee nee na yi nag mooy bëgg lislaam gi nee na ku gëm Serigne Touba la ndeyjoor ak sama càmm laa yëg ni ma sëriñ Moussa yittale yëg googu nag moom laa doon dund ak moom ba ni ma jiitoo ak njàmbaar lañ ko mën a tuddee ndax mënees na koo tënk ci njàmbaar waaye man booba gone laa li mu wax ak man moo di fekk booba maa ngi dugg jàngu xam-xam li mu njëkk a wax ak moom mooy li mu dénk ma góorgóorlu si njàng mi na eh, man bu ma xamee rek mel ne xam na loolu la ma loolu laa jëkk dégg ci ay waxam ci loo xam ne eh, da waxtaan la boo xam ne sama diggante ak moom loolu laa doon dund ci moom teel a yëg ak njàmbaaram ak jomam ak ñàkk gi nga xam ne ñàkk na koo tal dara

ndax yéen bu rëy bu diis boobu ci tolluwaayam moom ci boppam diggam ak adduna ak tolluwaay sëñ Basiru boole yépp yenul ko boppam loolu sax mooy kiimaan gi ndax dafa mel ne boobu su dugg na lëg-lëgu adduna xel fa bàyyi ko ci sama moo moo tudd ak leer bu tawee si nit yi jukko jukko lay doon jukko yi nag bu ñu fàggoo xel ma day xel lu amal njëriñ ñëpp yàlla gën koy xel ci jàmm yàlla ragal yàlla topp yàlla bàyyam fàgg ko ci yar ko ci taalibe mos ko may benn yoon fu mu yekkee nàkkam ci njub ak liggéey doom sëñ Bachir loolu doy nit doon ko xam ne kii amoon na diini moom taalibe liggéeykat loolu ñëpp xam nañ ko ci moom. soxna Saa Basiir moom sama digg moom day loo xam ne moom dañ ko susul day jë day jëf yàlla suñu borom. jàng ci moom ak taalibe bi jàng ci moom ngor jàng ci moom diine jàng ci moom jom ak ko maandute ak ko ragal yàlla ndax bis ma ànd ba bisu tey bii may wax ci moom de musuma xam ci moom lan lan lu ak jub mat sëkk te am personnalité te diñ di nit ku amu fit te mën a jaamu yàlla te way ci pas-pas lañ ko ma a xam ak dëggu ak bëgg Sëriñ Tuubaa goo xam ne yi dara desu ci yéenam ci lislaam itam rëy na yaatu na kon nag ku dib jullit ku naaj sa njort rafet na ci moom ku fonk lislaam la ku fonk alxuraan la fu jëm fu ne bala fa bu dee xëy war faa jëm bala faa dem dina julli suba doo doo doo ko xëy te fu jullee suba ba dugg ci oto bi mu ngi ci alxuraan yi ba ba wàcc ku amuk taal bi ku bëgg sëriñ Tuubaa ku bëgg waajuram wa di Cheikh Amadou eh, mu yar ko jaarale ko fa ko jaarale Eh, mu doon koo xam ne eh, doxalin rafetoon na lool. ni ab mu murit war a mel noonu dafa mel da ko judduwaale. li andi Cheikh Moussa Bachir yàlla melal ko ni mu ko melal. sëriñ Bachirou dafa takkoo ak sëriñ Touba. juróom-ñaari at yu sëkk. yoo xam ne jonjoo ko ak sëriñ bi. ba tax na jëlee na ci sëñ Touba loo xam ni gannaaw bu mu doonee wéy juróom. taqoo ga sëriñ Bassirou am na ci cëru boppam boo xam ne kenn fekk ko ca loolee nag wàcc si ba yàlla jox ko Cheikh Moussa Bassirou mu jaarale ko fa mu ko war a jaarale yar ko ni ko ci yoon yu ko sëriñ Touba tegoon mu jël seex Cheikh Moussa Bassirou teg ko ca. def ci moom éducation bu wér waaye bi ci ëpp solo mooy xamal ko kuy sëñ Touba ak fa mu ko war a teg daf ko waxoon ne ko maa ngi lay dénk dénk boo xam ni loo ca moy dana mel ni. naaju njolloor ñu di la ca doxloo te soloy dal ne ko bi ci jëkk feek maa ngi dund maay sa buntu ci Sëriñ Tuubaa nekk sa wasila bis boo ma noppee gis képp ku ñu wax ni moom mag ci njabootu seexal xadim jàppal ni jëmm jaafane bu dara dox sa digganteeg moom lu mu joxañ na ko dagg loolu la ko sëñ Bachirou dénkoon sëñ Moussa Bachirou nag remplir ko dox ko ba mu mat sëkk. kon nag lépp loo xam ne lii kër sëñ Touba ngi fi doomi sëñ Touba yaa ngi fi suñ demee ci ndigal dañ leen di bëgg téye leen sagal leen. lépp lu ñu bëgg ñu nekk jaa ñoom. sëriñ Basiir bi muy wàccu liggéey waaye juróom bi sama bàyyi tàggoog moom ci néeg bi ba noppi ñëw ci saal bi di ko wax seen seex Mbacke kenn faat na nee na sëñ Moussa Basiiru mi ngi toog ci wetu sëñ Cheikh nee na bi ma ko koy wax maa ngi xool xar kanam sëñ Moussa Basiiru booba bu bu soppi ko woon rek ma xam ne li fi sëñ Basiiru bàyyi. dana booy dëgër gu mel noonu la sëñ Moustapha def tasaare ci tasaare ci mboolem ñi mu yar muhammadan bi nasmin wa nasrin wa huwa nimasatu busuri kitaabullahi wa sunnatullahi ya ahtami amana at moomu nag yàlla def na ci la ma yàlla xëy nag si eh, bëgg a génn jàngi te moom dong laa si yaakaar ndax te xaw ma woon ne dina mën a bàyyi déet ma am benn bi ci bustaan ma am benn bis nag wax ak moom ba may wax moom it xaw ma woon danaa la ci bëgg danaa ko amam déet ma xamal ko ne ko fi mu toll nii eh, gisuma ci ko bëgguma dara daal lu jàngi loolu daal moom rek laa bëgg moom si mën a dimbali te booba yéen yéewat naa ko ba nga xam ne booba lépp booba lépp maa ko maa ko maa ko maa ko ak muy tiis la moom naqari moo xam ne sonn na ci loolu moo xam ne booba euh, bàyyi ko gannaaw sax dem booba euh, yitte ji dama ëpp doole rek waaye booba bàyyi ko gannaaw di métti na ma lool waaye yàlla def muy mbirum yàlla mu yàlla dogal rek bi ma ci waxtaan ak moom moom mu mu mu daanaka mu ko woyofal toyyu am ci yaakaar bu baax daal di mu si ànd ci ànd ak man foofu bisimilah laa ko bàyyi yàlla def am si bett mu ànd si ak man lool mu mel ni daal kon loolu ko lépp am naa ko. Eh, rakam nag moom la la la la ko la ko bàyyam defoon rek la ko def rakam mu si mu taxaw ci moom. ci te ne fi mooy sëñ sëñ si Cheikh Sofane mosa woon ci am dërëm mu sëñ Moussa mosa si Cheikh Sofane mu sëñ Mountakha mi fi nekk tey ak sëñ Abdou Akim ñoom ñëpp ku ci nekk boo nekkee fi bërëb suñu saa wala téléphone la suma sama xanaa toog ci suuf personnalité bu mag boobu ko yàlla joxoon te dund ko ànd ko mboolem ku nga xam ne xam na ko itam ànd ak moom dund ci loolu lépp lu jëm ci

bi nga xamante ni ñu ngi war a jàngale jikkoom ak i meloom amatul jotam amatul wéram waaye nee nag moom mii kat lu bari jàngal na ko ko ci nee moom kat lu ko sëriñ Basiru jàngaloon jàngal na ko seen i baay nee na it ànd nañ ceeg moom bu baax a baax nee lu lépp loo xam ne lii sant nañ ca bàyyi dara lu ñu xam moo leen ko xamal nee na bëggatoo ñoo xam dara yëpp sëriñ bi xamut Lum lum len leen man nga programmer sëñ Moussa air bi buma ma demee net dana fekk muy jang alquran air bi mi ngi ci dogi xaside ya air yi mang ci ahsab ya heure yi mang ci ya. wirdi ya heure bii génn na ci mbolo ma air bi fatuna di dallo heure bii mi ngi wax ak njabootam di xool nos mbiram. sëñ Moussa su ma ko bëggee def champion ci olympique yoonu murit mooy kilifteef champion la ku jiitu jiitu ku war a topp topp carte d'identité boo ko mën a jox ci àdduna booboo ko gën a te booba it day bi nga xam ne ëpp mën jëriñ it murit te it na ko nangu gee topp cër boo xam ne fu mu teewal yoonu murit sag ba mat sëkk muy talibé mu ñek talibé def na ne lim la wax nek ci mom mo nek ci yow non la mel. sëñ mustafa nag dañ ko xamni ki dafa naqare xam na fi ndar fep dafa neexut a nett ci kóllóore ak bokk ci jàpp te lépp moo ma jàpp jàpp bop xam nga diine ak xam nga jamon ak xam nga bopam matoon na seuk nim juddo gané ko adina banim démé mu demee ci aduna ba gënta dara taxu dafa set wecc. ci lépp loolu rekk nag mooy li ma ci gën a yéem mooy lëgg-lëgg bu adduna boobu mu xuus dugg ci adduna xuus ko ba jàll te dara dara gàkkalu ko loolu rek man moom laa ci am lu ci yem <laughs> lu mu nekk lu ne organiser mu gëne ndax nit ku yàlla mayoon eh, mën naa ne sax perfectionniste lu ne dugg lu ne la ca gën lay wut résultat ba li tubaab wax ne un homme avisé ku xam jamono mooy Serigne Moustapha ba sujet boo ko mos a wax dana lii tegal suuf wala defal. liggéey ak jaamu yàlla daal ak jàpp suñu jaamu loolu moom xamoon naa ko ci moom ak tam nag dimbali bindee fi ndax fii kat dimbali daanaka gannaaw ne lu mu ci lu mu ci def kenn xam nu mu toll. dégg na mbir te xam ko doon na koo xam ne it ku am engagement la ku dëgër. neena na ko xani ku mën kuy déglo kuy déglo la lu mu wara def lu ne xam na ko te dana ko def lu mu wërta def it lu ne xam na ko te du ko def muy koo xam ne dafa am qualité yoo xam ne bu bokkutoon fi mu bokk sax ku ko am mata waxtaane waxuma laa fi mu bokk li ëpp solo ci nit mooy kilifa gu jub jub baax tabe xam boppam te fonk yàlla yaaram nitu yàlla liggéeykat yàlla may ko xolu yërmande may ko xam-xam ci lislaam may ko xam-xam ci àddina zahir ak baatin baatinu axir baaba sëriñ ba sirul toll na ci diggante Cheikh Mahamadou Fadil moo fi nekk xam naa doxinu àdduna tax mu bëgg a noppal sëriñ ba sirul ci lépp sàmm sàmm di ko sàmm itam ba dara bañ agsi ci moom du ci biir du ci bitti moom moom moo doon yitteem booba. wax jeeg jëf jeeg melokaan weeg doxiin weeg jëflante yi yëpp doo mën a am looy xebat ci moom ku mel noon nag damay jàpp ne kon mooy ci ni ma ko jànge mooy mooy jullit bi nga xam ne moom la lislaam soxla. bi nga xamee nag sëñ Basiru wàcc na sëñ Moustapha ci ak maam ñor gu sëñ Basiru ñor ak doxiinam ngir da daan wax ne. lu ma roy ci sëñ Basiru rek ci sëñ Touba la ko roy ndax dafa yaroo ci biir kër sëñ Touba. ku fi nekkal sëriñ bi bu bu nee fi yow loo koy liggéeyloo day takkook laxasaay ci ndiggam du sol mbaxana du soxla sol daal loolu gis naa ko seere naa ko waaw man daal taalibe laa xam ci moom bëgg sëriñ bi xaw ma leneen lu mu bëgg lu sëriñ bi. sëñ bi du yànn ko fa ko mu tudd <laughs> nee na moo tax bi ma ko noppee gis rek. bañ demee ba ñaanal ba noppi rek laa daal di xëy dem joxe sëñ Fall saa bopp daal di eh, jaar ci sama mag si Cheikh Mbacke tàgg ko jaar ci nijaayam tàgg ko da yëgal ko ko daal di daal di ñëw dem nag kon ci loolu la mus musta jóg ci musta jóg ci taalibe googu ba sëñ Fallu mujj na bi muy def lu njaay rek ci ndiggante soosu moom la koy dénk. Cheikh Abdoul Ahad doyloo ko ci fànn yëpp jël baatam ak yoon wi ak màggal gi yëpp teg ko ci loxoom. lépp moo ko daan doxal su màggalu Touba ma jub daf daan wax ni taalib yi nga xam ne dañ may siyaare nañ ma féexal ba màggal gi jàll ndax ndigalul sëriñ bi du ko boole lenn. mu teg ci loo xam ne lii itam mu di kër gii nga xam ne mooy buntu jumaa ji di kër sëñ Bassirou yàlla dogal moom bi ñuy miir eh, kër sëñ Basiiru bi bi ñuy miir daaru ak ak terrasse yi ak yëpp booba maay kilifa dongo yi foofu laa ko doon miire benn néeg fa neen mu xëy joxe ko lan daloon ca màggal ga dalaanu nun ñi nga xam ne sun sun sun sun sun xel yaatuwut amuñu gis-gis ndax kër gi ni mu deme ak fi am ak ni mu placé ko am néegi di ko jox di ko joxe ñi ko ñi ko xajoo bëriwul. sëriñ Abdoulaye bi mii bi nga xamee ne sëñ baa ngi jébbale si sasu jumaa ji ba sëñ Moussa di waaj a ñëw sëñ Abdoulaye daf mu mag dafa jox sëñ Abdoulaye bi mii mbubb ak kaala ne ko kaala gi mën nga koo def ci sa baat waaye bu sa baay dee ñëw na nga ko kaalawoo. ndax wóor na ma ne ak laxasaay la fi indi bañ defee noonu ba oto yi départ ba ñu ñëw sëñ Ablaat mii tey fab kaala gi laxas ko ci ndiggam bi sëñ Ablaat toogee ci banc bi canapé banc photo bi nga xam ne ci la ko sëñ Moussa war a fekk daa toog ba mu yàgg mu ne ko Abdoulaye sa baay day neexatu la toogal ci kaw muy toog ci suuf daal ne ko sa baay day wàcc waayu doomi sëñ Tuubaa la def daal di wàcc banc bi toog ci suuf moom sëñ Ablaat bi sëñ Moussa ne yulub rek ba ba ne sëlëb ci buntu néeg rek dafa daal di sukk di raam wuti sëñ Abdu Lahat sëñ Abdu di ma jëm ak sëñ Moustapha mu raama raam ba yegg si ci moom daal di koy nuyu jëbbal ko addiye ji ne ko lii tey bëriwut ñeent fukki million yu teg la waaye soo ko laajoon ci róo it danaa ko indi te sama róo ciy jiitu ak ñi aju ci man sëñ Abdu foofu loxoom tekki ba ne ko sëñ Moustapha mu ne ko mbàkk mu ne ko dara jëru جف دي ستخال واخ دا نكو واي نغا خامني يوم القيامه الاكبر سيرن توبا دا توك سيرن بسيرو توك ما سيرو سيدي فام تك سيم لات فلا تودم سيرن توبا ييب دا فا بولا جاب نييب تا توب كين توب كو خامني نك جوخ كو بير باي بيتي جوخ كو بيتي باي بير دا كو جوخ بيرم اك بيتي ساي نام كو باتي نام نوب نيب مو كو يور مان نالي سابو باتاي وات نسي يالا توك وازن سي جان وازن خاجي wenn laaj bu leen gën a màgg amul waaye buñ si jëloon tey jii bu may dem sëñ Moustapha mi doog a mel sama gannaaw kon ngeen xam ne sëñ Touba rek a fi fekk naa ko ba tey ngan googu sëñ Abdul Xaadir Ganasi waaye ñoom ñëpp a maase ëmbal ko ak cofeel ak ngërëm loo xam ne man dama ci am lu wér da ko tàmbalee ci ñi ma xamagoon ñu tase moom sëñ Abdul Ahad ba ci sëñ Moustapha taalibe yi nag sëriñ bi li mu leen di denk li ñuy dénk moo di sax ci jaamu yàlla sunnatu rasulullahi sallallahu alayhi wa te fonk liggéey bu baax te boole seen bopp te waral seen te seenu gëm te am mooy sax ci jub nee na yàlla nañu suñu borom boole dimbali amin yaa rabbal alamin nee na Cheikh Moussa am ni sëñ Basiru mi ne lépp loo ne lépp loo xam ne moo daa dox digganteem ak président ak gouvernement bi na ko sëriñ bi Abdoulaye defoon ne wéyal na ko wasilatu sarmadam wa fil xalbi minni min yéen bokki taalibeem yi. nee nyep. mi ngi len di nuyu yéen ñep ñi nga xam ne. ne rawatina ñi nga xam ne. seen baay wala seen mam sëñ Bamba ko seexaloon. ñi nga xam ne seen baay wala seen mam sëñ Bamba ko seexaloon. ñoom ñëpp ñu ini nyep. nañu fi. nyep na ñooñu ñëpp ñu ci bari daje nañ ci dañu lim sax seen i tur. nee danañu lim sax seen tur. ndax bëgg ñu rañé leen bu baaxa baax. ndax bëgg ñu rañé leen bu baaxa baax. ñu xam ñi nga xam ne seex yi nga xam ne ñoo téye yoon wi. yi nga xam ne ñoo téye kenn yoon wi. ginnaaw doomu sëriñ bi. ne sëriñ bi. ginnaaw rakkam yi. ginnaaw rakkam yi. ginnaaw taaw yi. ginaaw taaw yi. ginnaaw seeni rek ginnaaw ñëpp. nee na ñooñu ñëpp. boole nañ suñu bopp. ne boole nañ suñu bopp. takkoo takkoo. fas yéene yeesal sunu njëbbal. fas yéene yeesal sunu njëbbal. ci Cheikh Abdoul ne. ne daan nañu rim tur yi nga xam ne. ñëpp joxe nañ seen bopp tey. xat-xat bi mayu leen a teew def ko. te xat-xat bi mayu leen ñu mën a teew ba yegg ba ba def ko nee ñi nga xam ne jot nañ sëñ bi ba def ko it. ñu ngi koy yeesalaat ci kanam mbooloo mi. ñu ngi koy yeesalaat ci kanam mbooloo mi. loolu loolu nag déglu nañ ko déglu. ku déggul turam. ku dégg turam ku dégg turam. xam ne kon. xam sa njëbal àgg na. xam ne kon sa njëbal àgg na. la nga doon yeesal àgg na. am nay seere itam. am nay seere itam. say taalibe danañ ko dégg. say taalibe danañ ko dégg. say bokk danañ ko dégg. say xarit danañ ko dégg. ne yoon wi nag. nanu góor ba li nga xam ne. ba li nga xam ne. yàlla mayoon na ko sëñ Bamba. yàlla mayoon na ko sëñ Bamba. may ko ay magam moom mii. nu si yéene. ndam lu ëpp loola. def ndam lu ëpp loola. ba ñu xam ne. ba ñu xam ne lim fi fekk. lim yokk na ko. yokk na ko loolu noonu noo ne loola noo ko a def. moom. moom na mu war a mel mel na ni. nun noo ci des. nun noo ci des. nan takku. nan fas yéene takku. te liggéey. te liggéey. dégg ndigalam. te dégg ndigalam. te jaamu yàlla ni ko waxee. te jaamu yàlla ni ko waxee. te fas yéene lu mu digle. nu def ko na mu ko bëggee. ne loolu moo ñu jëme kanam. كما وارنا بالخير bokk yi seet leen jëmm yi nga xam ne bu ko xalifaab Sëñ Tuubaa woowee du dox du waaxul waaye day ñukk aw xelam ñëw ne groupe sukk ci kanamam kooku mooy Serigne Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir

ci suñu murtaan mi nga xam ne xam ci moom lu jafe xam dara lu jafe la sax xam naa pas-pas bi mu ko nangul ak fi mu ko teg te loolu suñu saa ko jëf. Azhar gii ngay gis liggéey ndaam gii moom la ko jëkk doon liggéeyloo boobu maa nga fa man mii la daan yónni defal mi bi moom suñu murtaan di laaj ci def di laaj ba léegi maa ngi kii ba Ndiaye tal bi suñu loo xam ne daa tabaxkat la nekkoon moom la jëloon nga xam ne maanaam moom da waa kër gi la delloo lépp tu waaye nag moo yore seer ndaam ndaam gi lañ fi dëkk liggéey ci ci loo xam la ko yàlla ci loo xam la ko yàlla jaarale waaw yooyu yëpp la ko waral fonke la ak taalibe ak dëggu rek ta te te te loolu ci loolu lañ lañ ko xam ba bëgg bëgg bëgg sëtiñ ko. ñoom ñëpp dafa farlu woon ci ñoom ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada gis nga ni mu ko daa fekk see waxtu wu ne te bu ñëwee gis nga nam cee sonne. gis ngeen ne positif bi mu ciy am bi mu ciy am. doomi Serigne Touba ju fi ne. ngeen boole yéen ñëpp waa kër Serigne Basirou. ka ca fi seen kanam. liggéeyal Serigne Touba. di dem ci Serigne Touba. di del si fii yéen di leen wax ndigal Serigne Touba. ngeen ànd ak moom di ko def. Cheikh Abdoul Ahad woo na ko Touba beral ay ngan ay yoonu yoonu yoon. bañ na ko ba digg moom àgg digg ak moom àgg na foo xam ne tey jii néeg néeg bi mu wàcc liggéey ci Touba Belel sëñ Moussa Bassirou ko liggéey daf ko daf ko jëloon ber ko ca biir buy jàng alxuraan fa lay nekk buy defi xasaytam fa lay nekk bis bi muy wàcc liggéey bi muy jógee ci neex see neex seex mënu badal bi di fanaan ci neex sëñ Moussa Bassirou bi mu ngi yëkkati xasaayit ca kaw te ba mu àggee ci neex sëñ Moussa Bassirou fa la waajee ngir wujji borom tabaraka taala te lu fa nekk sëñ Moussa Bassirou ko fa def ak kër Serigne Fall gi moom li leen boole mooy jënd mu njëkk mu njëkk yooyu mooy Serigne Serigne Serigne Bassir xam nga lépp ci lu doon xam ci Serigne Fall kat bu loolu jëriñ jooyee di Serigne Bassir du ko xam ndax lam lam ñemee laaj bàyyam seero sëñ Mawone Moussa jaay na njuréem ba du ko laaj sëñ Mortala jaay na njuréem ba du ko laaj sëñ Ibrahima Fall jaay na njuréem ba du ko laaj sëñ sëñ sëñ Assane Fall. doom mi ngi itam ñëpp ku ne jaay nga la nga seexoon moom jëli jëli ko li ne fi moom doo laaj mukk lu tax ngay def nangam wala noo defoo nangam loolu du ko laaj loolu lépp nag jàmbaar ju yi nga xam ne laaj ko bàyyam seera ba ba mu ko kon bari na lu xam ci yoon kat te Cheikh Mamadou moo la baaxee ndax moo ko laaj bàyyam mi sos yoon ba nga mën caa doxee ci hectare bi. nee ndax gëmug Serigne Touba am ni mu ko mën a méngaleel moo di Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne mooy royuwaay bi nga xam ne moom la ñu xam ne moo gën a gëm Sëriñ Tuubaa ci nit ñi mbubb yi sol la ñu wuute waaye xool bi moom benn lañ ci nee noonu yi la gëmee Sëriñ Tuubaa nee tax na kon nag ku koy roy na nga jiital ak taalibe ci sa bopp sunu kër gi ne waxoon na ne nañ def Baye Fall yi kër Serigne Touba Baye Fall yi kër Cheikh Ibra da ngeen a bokkul mbubb waaye yéen a bokku bëgg yéen a bokku jublu yéen a bokkit ak gëm. Cheikh Mamadou Moussa moom Cheikh Mamadou Bassir ne keneen néew jëre te yaakaar ni Serigne Touba mbala mu ne Cheikh mii am na loo nii jërëjëf Cheikh Mouhamadou Moussa loo xam ne bu la laajee mën ngaa wax ci moom bokk na ci benn nag loo xam ne des koy beral muy tur wi nga xam ne moom ñëpp koy waxaan léegi nag muy Sëñ Tuubaa ba nga fi teg teg nag kam doon ndax loolu bàyyi woon ko ci xel xam nga jëriñ Sëñ Tuubaa ji di Cheikh Mouhamadou Moussa ku ne xam ne ni mat na kam wóotu woon ndax ko waa ko matal. kon xam nañ sëñ Tuubaa rek ba tey waaye ndi ko wooyee Cheikh Mourou Moussa rek bi Cheikh Mourou Fall ñëwee ah kon na xam nañ di lan bëggoon sëñ Tuubaa lépp ma nga ca moom lan bëggoon ca magam jëm wóotu Cheikh Mourou Moussa ma nga ca moom waaye mu tudd nag si am faaral nag turoo turoo wéyal na ko nag waaye bi sëñ Tuubaa Abdoulaye toogee nag mu wax turoo nag sëñ Tuubaa wan fi si Abdoulaye Mbacké loolu loolu ñu bari réew na ko ci sëñ Touba sëñ Abdoulaye sëñ Touba na nga yób moo ko moo ko moo ko fi wax baatu askana la ci ci ci ci waajuru góor it ci moom la tàmbalee daanaka ndax ñu jóge yëpp moom sax bët jaxat lañ daan wax waaye moo ko moo ko fi dindi ngir ngir ngir njàngaleem la njàngaleem la ci yoon murid dem na bu daj loolu loolu moom yàlla ko yàlla yàlla yàlla ko yàlla ab ab xaasiyam la yàlla ko jël loolu loolu rek la Cheikh Mouhamadou Moustapha Bassir murid saadix ndax ma ko teg mooy te Cheikh Mouhamadou moo ko yar te Cheikh Mouhamadou kenn ku ne xam ne Sëñ Tuubaa moo yëpp ak xel ma ak nangoo liggéey bi yëpp Cheikh Mouhamadou Bassir def na ko ci kon nag nan nun nan fonk bis yi mu fonkoon mooy bisub màggalu Poroxaan ak guddi gàmmu njaareem ak màggal gi nga xam ne ñëpp noo ko bokk boobaay boo xam ne jëfe ko loolu nee na moom la ñu mujjee keroog mu ñaandi ci ak moom nee lam nee noon wax mooy seen tàmbali bii yene ne yéen nee na nag yéen li nga xamne ne xamu ko won ci serigne basirou mu di len ko jangal ba ëllëg gi ci bir bu ngeen fi dess yéen dong fekk xam ngeen ci mom lu bari. ben doomu serigne Touba bu ma sa gis mbaxana serigne mustapha wala dalu serigne mustapha mustapha ku kuy kilifaam boo ko ñaari fan sax bu la siine bu ne diwee nuyoo rek bu sumina mbaxana mi def tanki den sa yow ci biti te ko tax mu koy def mën nako ma gis bu dess sur le plan matériel mm-hmm waaye teewul seigne touba gi lay delo jukal gis sa kilifa. jub ko rek sànni sa mbaxana. sukk sey batuwam ci souf sama kaas yëpp ci man na ne ci mom lañ ko jang telephone jeuk yi nga xani ne fixé lawon bu ñu kar ñun ko seigne abdallah Lahad lay woo. day wacc fauteuil bi tok fi souf bank ñaari tankam summi mbaxana. wuyu ko wax ak mom ba nopi dooro a tok fam do tok jenn Touba ju mas gis mbaxanaam amul kenn ci mbaxanaam seigne Moussa no mboolem doomi sëñ Tuubaa ak mboolem ñi nga xam ne magee nañ ko dara lu néew néew rek ci ci sëñ bi fu ko fu ñu daje rek dana leeral xam ba ñëpp xam ne ñooñu ay kilifa lañ ci moom. ñun ñoo koy sant baax ngir sas na ñun ñëpp kat kenn gisatu la nga nee ngir Cheikh Moustapha ni mu def kenn gisatu li nga nee ngir Cheikh Moustapha ni nga def sëti sëñ Tuubaa doomi sëñ Tuubaa fii sa Cheikh Moustapha Sall ne leen bu Cheikh Amadou doon ba Cheikh Amadou Cheikh Amadou Bachir noonu ñokket sëñ Tuubaa ne ñokket du soppi dara. ne ko bu Cheikh Amadou Bachir noonu ñokket sëñ Tuubaa ne ñokket mbàkk yow mooy wàll bëtu koo soppi ko waaye yow doo soppi ko dara sa yoonu maam yére a yokk ko ko baax ndax ñun ba taali bi boo xam ne nangu yoon waree te tegu na caaw na sa war na ko coono bi mu nar a sonn ci ci taalibeem ak mbokkam du mësu ko benn sëriñ mën ko nangu ko sonn ci ay taalibeem kooku mu amu ci woon morom ñu bokk ci sëñ Tuubaa ñëpp rafet lañ aw dox doxinam rafet lu it dem yare ak njabootam ci ak taalibe ba nga xam ne ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi dox sëñ Abdou Xaadir daana wax daan sëñ saabu Bassir am nag taalib ci wéet ak ki wéttali ko loolu joxe na lool yàlla na ma baaxee dañuy ñëw ci ay bisu Maam Fallu nga dafa mànd moom ci oto Mercedes bu ko alañ ñu joxoon jóo koy joxoon maa na ñëw ci buntu ko buntu ko laat boobu Amadou Karim Gueye mooy ministre des forces armées moom la Madi Sissoko yabal Madi Sissoko mooy wut si moom ci réew mi boobu dafa prestation surtout ma tukki yàlla na bi sëñ Blaye jëlee kàddu daa tënkoon ni muy liggéeyee ci yoon wi xam le ne yoon wi moo fi nekk bokk yi ak Tuubaa ci boppam ak diggante ak taalibe yi diggante ak waa waa góor loolu nag mu seetlu ko ay cër waaye lu aj ci biir Touba dama ko dénk sëñ Cheikh dama ko dénk sëñ Modou sëñ Modou Bousso Dieng lu aj ci jumaa ji dama ko dénk sëñ Cheikh sëñ Cheikh Fall ma dama diggante waa góor sëñ Cheikh Bousso laa fi laa fi doxale maag taalibe yi nag doxalewuma fi kenn maa ñoom rek ñi ma lim nag moom sëñ daal mooy wax de ñi ma lim nag bu si ñëw fi man di ma wax lu lu lu noonu ci ñoom na nga xam ne neexuma ca dégluwuma la bu wa bu dee ci tab tab sama nopp it na nga xam ne mere naa la loolu tënk ay kàddu moom la ñu doon yàlla baax ma it bañ jógee ci jotaay ba ànd maa ngi fi mu si waax boobu daal mi ci baraag boobu fi ñu fi ñu si bàyyoon ci këram. daan na ko noo dégg wax ji mu ko lépp rafet te jub waaye man na sama piir de moom moo ci moo ci jaaxal mu ne ko ah mu ne ko sëñ Moussa Moustapha jigéen la fi doxale woon dañu toll daam daraame la fi doxale woon man nag ginnaaw foofu foofu foofu daa tabbi nanga na wax daa ko def waaye dama la ñaan nag bii nga xam ne kenn du ko si diggante ak taalibe bi moo ci moo ci kenn jiitu parce que naa yéen doxal lii mu sant waaye lee parce que naa yéen kenn du ci mën. kenn du ma na ko te yàqu diggante ma waa moo ko ñor yéen ñi nga xam ne yéen sama rek ak waa Darmeen gépp maa ngi leen ñaan ñu suubu yoon yoon boobu gii na ca noom bañ ko wàcc. Serigne Moustapha ak niti diine yi nga xam ne ñoom la fi fekk kenn ku nekk ci ñoom dafa am nu la sëñ Moustapha jàppe woon yow itam nga am noo ko jàppe dafa bari lu mu dox lu rafetal diggante ñépp ci ay bokk bari na diggante bu mu dox ba diggante ba rafet te kenn xamul ni moo ko dox mësu ko tiitaroo bu la xasee jàpp ni tamit amul jàpp joxe lii bàyyi lii dalay jàpp bu wér man nitam lool mën a defar bokk lool di puso buy ñëw ci yoon wi ak ci bokk gi ni ko bàyyi meloon. sëñ Basiiru kii da ko waxoon ne ko loolu ñuy tabaxee ta tañ ko tuddee maaluj ab turel loolu laa la digal yow Basiiru nga di ko def ci yoon wi moo gis foo siinu fett fett rek noonu maçon yi def demal dara. <laughs> loolu loolu ma suñu salaagu dégg ah, loolu kon loolu loolu loolu mu ne liggéey suñu basiir loo tax ñu nit luy taxawal yoon wi rek ak luy tax dara du ci mejj moo war a doon suñu liggéey kan mooy Cheikh Mamadou Moustapha ci fonk diine ak fonk sharia waaye xaqiqa moom buñ la nee Cheikh Mamadou Moustapha sa xel du dem ci lu dul moom xaqiqa bi mooy bëgg Sëriñ Tuubaa ak taalibe ak fonk kilifa gi ak wamatu gi loolu moom bu caa nekk ci kaw ñëpp koñ bii ñu nag muy Touba Kaolack bari na ci gone yoo xam ne yi seen fonk lislaam tax na fajar sax ci jumaa ji lañ koy julee si waxuma laa nag yeneen yeneen waxtu yi leen fiy fekk nga xam ne loolu lépp ab liggéeyam la ñun ñi nga xam ne nun la samp ngir ñu liggéeyal ko liggéeyam boobu ci lislaam mu def na noo xam ne taxoon na mënatuna miin keneen ku dul moom ànd ak ñun nag ci pas-pasam bu bu boobu ak farlam googu ak yitteem ju koy jooju nga xam ne lu ci waay xir xir da ciy daw ci gannaawam te du ko ci mën a jot waaye mu dimbali woon nu ban ànd ak moom ca loola dimbali taale bi yëpp yëpp yëpp ñi nga xam ne ñoo aju ko Cheikh Mouhamadou Bachir ak ñi nga xam ne nii nangu nañ ak royukaayam ak nekkam royuteef dimbali leen ca yoon woowu ñu di ko doxee xam ne ay jullit lañu ay murid lañu fonk lislaam lool fonk ak taalibe lool di dox ci sharia di dox ci xaqiqa bi ma dëkkee Baobab ma toog bés ñu ni ma sëñ Moustapha Bachir ne nga wuy si ko Kolobaan mu jóg jaaruma sax ci sëñ Cheikh pour wax ko parce que xam naa ne farata la may doy ma dem ñu toog ci salle bi tuuti mu ni ma agsi ci néeg bi ma agsi ci néeg bi mu woo sëñ Muntaqa sëñ Muntaqa ñëw mu ni ko tàllal sa loxo mu tàllal loxoom mu ni ma jëlal sa loxo nga teg ko ci loxo sëñ Muntaqa ngeen fasante kóllëre mu ni ma ndax fi nga féete sëñ Cheikh la ma féete waaw tabaarakallaahu <laughs> loolu maag sëñ Mountakha ñu seq ko te sëñ Moustapha Bachir moo ko moo ubbi yoon wa moom bi mu dikkee dafa wéyal la Cheikh Mouhamadou Bassirou waxoon ndax Cheikh Mouhamadou Bassirou dañoo wax ne dafa wax waa ka waa fii Touba Gallas ñu ne leen dee nga xam ne kon mu ngi bàyyi xel li lislaam wax ne bu fekkee na jumaa am na fi te jumaa jooju ëpp gudd waa dëkk bi jan la war a doon doon seen wëllëre nga xam Baye Mbaye Diène mi nekkoon fii nee ma Cheikh saa Cheikh Mouhamed Bassir ñëwee fii benn fan wala ñaari fan nga gis fii Cheikh Cheikh Ibrahima Niass noonu la meloon nag waa Léona muy waa kër Khalifa Niass noonu la meloon nag waa Kaneen noonu la meloon nag mboolem kilifa yi ci dëkk bi loolee nag ba Cheikh Mouhamed Moustapha dikkee dontalee moom amul jot gi Cheikh Mouhamed Bassir amoon ba di fi nam fi daan yàggee waaye mi jàpp loola. jàppaloo ko ñu mu fi bàyyi. dafa bëgg mbokk bëgg bëgg nitu boppam bëgg bëgg lu aju ci moom lépp moom kooku mbiram la mbokk moom ni mu fi wàllu maanaam li mu bëgg ci mbokk moom neexu neexu dab waaw ku fonk mbokk la waaw ku fonk dëgg la it nag waaw waaw ku jub la it ci wàllu gépp nag di di santaane jub waxtu bu nekk fu mu toll maanaam maanaam bu dee ci wàllu wàllu wàllu liggéey noonu la ci meloon ak noonu la ci daana ma woon te moom ma jëkk lebal itam lii ma la wax bon nag jàngal nañu liggéey sama kër tam moo ko taxawal bi bi ma téye nag ba noppi ci man ne ma nag léegi da nga sancal ma njote njote gee suñ suñ Moustapha sancal ma foofu man nga sama yaay nga foon sama yaay fara nekk waaye suñ Moustapha moom moo moo ma sancal foofu moo daje moo moo woo suñu seen jigéen ak ñoom gajega ñoom ñii sëriñ gajeg ñoom ñi ñu doon ñu jóge daru mi ne doon dem di ñëw ci lëkkëy ba c'était mille neuf cent soixante quinze soixante quatorze quinze sëñ sëñ sëñ sëñcal ma ne ma ne ma nag wutul ma itam soxna doom sëñ sama nijaay moo moo ko topp lépp amul lenn lu ma jot ne ma nag nawet jot mu lebal ma ne ma jox ma fukki bëri ngay xott ne ma dama la koo lebal at moom yàlla dogale tam ma mu nangu lool am naa ci téeméer bëri ak ñett taal sama wut samay saret sam ñu yóbbu ko daal ma fay mbay faal waaw loolu ci laay waxtu martulaa dama koy wax dama su bay moo ma dugal ci mbay ndax man ñun duñu ay béykat waaye fi ne dama tam dama ci doxee di béykat rek Sëriñ Abdul Aziz Al Amin mii fi jóge sëñ Moustapha Bachir daf lan wax ni moy sama secrétaire moy sama chef protocole sunu nganu Touba ge yeb dafa jël yeb tek ko ci loxo Serigne Abdou ni ko sétal noko organiser organisé. Serigne Moustapha Bachir mo ngi ko gërem ndax lu nek def nako ci aduna ba xamatul lu muy def kon nak yal nako sen barke dal yal nako barke mak ñi dal fa tabarakallahu matal na ak bokk yal na yàlla matal ak ci mom sëriñ seex ñëw Touba gan si Cheikh Abdoul ñett ñetti fan yooyu ngan nga géppit ci loxoom la ko Cheikh Abdoul Ahad tegoon woo sëti sëriñ Touba yi nga xam ne ay rakkam lañ boole kook ñoom ni leen taxawu leen ma mu taxaw ko ba mat sëkk ci karo ca tàggatoo Cheikh Abdoul Ahad dafa dafa wax ci làmmiñam su may tàmbale ay wax mooy sëriñ Moustapha Basir yi lu baax lu baax li nga wax ci moom moom laa lay gën a dëgëral ngir boo gisee muy sama loxol ndeyjoor sama loxol càmmoñ ci téem la ak taxawaayam ak pastéefam ñi fi nekk yëpp ay ay rakkam lañu ñi ci des di ay baayam waaye féete na ci wet boo xam ne euh, ak ak nangoom moo tax mu féete ba ba tax na kon bala maa tàmbali benn waxtaan ngërëm lu nga ko gërëm moom laa lay jëkk a seereel ngir yow mi ñu jëflanteegul ak man lenn loo xam ne lu ci moom la jaar li ci ci man sa dikk bi itam waxtaan ak ñëw géeg bis beeg ci moom mi la jaar noonu ñu ma ci sa gi ni la ma féete ci wet yëpp yal na ko yàlla féete man waxtu ma fa sëñ Cheikh Massane yónni dafa may wax ni rek moom sëñ Moussa Bachir dafa may wax ni nañu tase Touba bu ko defee ma dem yendoo góor gi sëñ Abdou waxtaan ak moom li ma sëñ Cheikh yónni tabaarakallaahu sëñ Moustapha Bachir wax ca la mu cay wax tabaarakallaahu ñëpp nekk ci jàmm sëñ Cheikh moo ma ne woon fu la mu sëñ Moustapha Bachir soxla bu ma tàggu waaye demal nga wuy ko mu ne ma ndax ku ku mën a dox lu rafet la. man de mën naa seede ni nit mosul dem këram seeti ko posé ko problème génn am déception man mën naa ko seede. mu ma mësaan dem itam poroxaan daf may wax ni noppalul ba guddi mu ni ma ndax ay bokk guddi lañuy waxtaan bu ma demee ba nit ñëpp tëdd mu yónni Bachirou Babou waaw. mooy ñëw jël si ma ma dem rek waxtaan ak moom ci guddi maa ngi fàttaliku ndeysaan guddi gi nu mujjee waxtaan maak moom ak sëñ Dan Mbàkke ñoo ko bokk fa lañu ñu toog di waxtaan ba trois heures du matin wallahi ci ci lu baax waaw moom sëñ Moustapha Bachir xamul lu dul lu baax xam nga waxtaanu guddi boo xam ni yow ki nga koy waxtaanal daanaka yéen ñaar rek yéen a koy dégg la cay génn ak la nga xam ne lii jële na ko ci wéy juram man toujours dama koy cité dama koy cité ah dañuy waxtaan moom sëñ Moussa Bachir mu ni ma sa bàyyi sëñ Bachir day nee na am na koo xam ne dee su ko dénk ay bóot mu ki nga xam ni bu xiifee ñaxtu bu reggee bajantu nee na kenn du ko dénk ay bóot ndax mbóot yoo ko dénk bu xiifee gis ku ko leel la ko waxoon mu wax ko ko wallahi lii dama koy nettali ci causerie yi may def man leen ci moom laa ko jële mu jële ko ci way juróom sëñ Bachir noonu mu ko doon defee Tiwaawoon noonu la ko defee Njaasaan noonu la ko defee Laayeen noonu la ko daan defee Tayba Ñaseen noonu la ko defee itam Medina Baay على من بي قد جاء أنا منه منزلا فلا تنتقي سوء حيث أسير bëggoon na réew mi bàyyi réew mi xel ba képp koo xam ne yaa ngi Sénégal am fi benn rôle buñ la jox nga di ko joué sëñ Moustapha bàyyi woon na la xel. te ngoon daan na waxtaan ak moom waxtaan yu xóot yoo xam ne kenn du ko fekkee laaj ko lii ak lii lan nga si xalaat te loo xam ne du affaire marabu sax.

mooy ubbiku ba eh, ñi jiite réew mi wóolu la na ñe mën la dénk seen bopp lu ñuy def waxtaan cee yow Serigne Moustapha àggoon foofu ak Senghor àgg fi ak ab Diouf fekk naa ko tubaab benn bés ñu toog ma ñëw jox ko sama àddiya rakk taalibe xarit ma ko joxee la ma ko jox Alaaji Maysa Seck mi ma àndaloon yal na ko yàlla yërëm moom itam ñoo ne ma kat am na benn kër buñ war a yokk ci boo paree visite yi ndax juróomi kër lañ préwaroon bu ñu fi jógee dem si xalif ba tekki ñaari kër am na yeneen ñaari kër yoo xam sëñ bi dégg na ko sëñ Moustapha dégg na ko bi ñuy jógee di dem la ma ko indi leen mu ne ma kaay yóbbu lii ndax lii prévoir ko woon dama ko joxoon moom la ma jox ne ma comme Alaaji Mbay Sëri la ñu ngi lay xaar kër gi ak kër gi te ñëpp surtout sëñ maam Touba la maam sëñ Touba la lii nga ma indi loon yóbbu ko nga jox leen ko man man danaa xaar man. Senghor nee na Senghor nee na te loolu man ñoo wax na ma ko sëñ Moussa mos ko wax lu tebbi ko. président Senghor ci boppam wax na benn bés mu ne ma li ma neex ci sëñ Moussa Bassirou boo ko laajee la mu xelaat da lay wax même bu la neexul. kàddu gam lay wax yàgg yàgg mooy doon liy am. waaw yàlla dafa defoon dafa defoon ak dëggu ci làmmiñam ba lu mu wax rek loola loolu moo ne ci xolam. président Senghor wax na ma ko man mii Popenguine parce que dafa recevoir sëñ Moussa basiru cinq heures et demi six heures ma yegg si mu woo ma ma ñëw fekk Popenguine ma dajeeg sëñ Moustapha nuyu ko siyaare ko ñu toog ci salon bi ñu woo ma keroog la ma wax ne ma sëñ mii fonk naa ko trop. ndax am na jaaxle yoo xam ne su ma ci su ma ko wooyee moom dana wax la nga xam ne moom la ma citoyen war a wax. lépp loo xam ne lii Senghor war na ko jël ci décision boo xam ne bii Sénégal la concerné dana woo Serigne Moustapha ne lii kat dama dama koy bëgg a jël ana lu ci ak lu jubul. dafa nuyu nit koo xam ne da rek taxañ ko yóbbu da ngay fexe li ngay dox boo fekkee yoonu mu doon na ca dara. nga fexe mu leer ko nañ tey bañ la yaatal ndax day discuter day casse droit day day xëcc euh, dafa dafa dafay dafa yan responsabilité su ko defee bu demee ba xam ne yow lii ngay def intérêt yoon bi la amul foo foo sa bopp. secret déjà du ko révélé yoo xam ne yi Serigne Moustapha moo moo ne bu mu am mukk Senghor bàyyi ko yoo xam ne bu ko defoon dana leen di coow lu bari

سيدي موسى بابا سيرو بابا تان نانا دغنا دي ماي واخ سي موريديزم خمنا نيت موريد لا ما دي كو سيدي ما لا تو ابو مكو فكي نيكو سما كو فكي جوربل دم فو سما كو فكي بورخان دم فو ريوم ييب خمكو Euh, mu jàppale ma ba mu ma jàppale ma jàppale ci lu wér ñëpp xam ko taalibe yeeg waa këram ak mu wax leen ni jàppale leen Ablaye ñoom ñoom ñu jàppale ma kon loolu li ma may doole ci bi ma nekkee président ci la bokk dimbali na ma ci lu bare bari bari ndax daf ma daan xëy mu ñëwaan seet si ko daan may xelal surtout bi may nekk sax CEDEAO foofu laa gën a yàggee def naa fa fukki at ak juróom benn yore naa fi CEDEAO Lomé daan na ma xelal lool lool lool Euh, wax dëgg dind na ci man ay jikko yu bëree bëri ndax euh, euh, xam nga kii yomboon naa yenn yi di yëngatu boo boo boo mu waxee lenn loo xam ne mën naa kii dama daan waaye dama daan wax naan dama daan digal naan ma da dangay da am da ngay am xel di xelli bu mu ni téeméeri nag benn yet moo leen moo leen di sàmm waaye ñaar fukki nit ñaar fukki yar la waaw mu ni ku nekk yaram la kon nag surtout bu ngeen xamee ni bokk leen sax mel ni réew ñii ngi jóge Togo ñii ngi jóge Nigéria ñii nga jóge eh, Burkina Faso kon nag da ngay seet ku ci ne ni ngay ni ngay doxee ak moom boole naree boole benn buum du yàgg du yàgg yu mel noonu la ma naan wax ku ne mbay ci Sénégal dañuy wax Amadou Batoor waaye day sama jàmbaar googee nit ñi gis ci man ci mbay ba di ma ko nawee Sëriñ Moustapha moo ko dugal ci man lépp lu ma ngaa def rek damay xool ci Sëriñ Moustapha lu mu sumb ni mu ci saxe ba am résultat ma ne may kat du ma sumb dara te di rocciku ndax rek dafa metti euh, Serigne Moustapha mbay moom kenn mënu ko woon tëkkale kenn ndax euh, euh, dama leen di wax ci affaire mbay mbayu noor la njëkk la ma njëkk a seetsee mais batoor ke yow mbayum noor maal ki dugal sax ndax ci moom laa ci ndigalam laa commencé mbay chef d'état yi itam euh, saa yu euh, boole woon naa ko ci ñoo xam ni euh, wax dëgg soxla woon nañ koy gis waaye moom mosula nangu génn mosula nangoo dem dem fenn waaye wax dëgg day daan mu yóbbante ay ñaan lu nekk daan mu ko surtout ki nekkoon Togo moom daan daan daan ku xam Serigne Moustapha xamal nga ko ci liggéey ni mu ci meloon. acteur de développement la mais médiateur social la aussi. Serigne Moustapha waxuma man liggéey gi waxuma sell gi mu sell waxuma soppalu gi mu soppalu waxuma jox gi mu jox boppam soxna Diarra Bousso waaye. moom Sëñ Tuubaa képp moo ko ñor lu mu def lu nekk lu mu rëy rëy du yëg ni def na ko sax ndax lu tax lu ko ñor moom Serigne Touba képp moo ko ñor man dama koy sentir lu bëri. dan na ma wax ni kër gi eh, nit ñi bari nañ fi waaye doomu ki taalibe fi ne lu ma wax rek dañ naan waaw waaw waaw li ma bëggoon moo di ngay ngay ñëw toog ñuy ñuy diisante yow yow yow yow da ma bu ma waxee loo xam ne lu dul noonu da ma wax ne sëriñ bi gisee ma ko noonu waaw loolu la de sorte que ci yépp xam nga liggéeyu liggéeyu kër maam jaara géeg liggéeyu daara daara jéeg lépp lu ci ne maam moom dañ ci daan dañ ci daan waxtaan lool lool lool lool. dafa am benn affectation bu ma amoon bi mu ñëwee mu laaj ma ne ma dégg naa dañ la affecté ma ko waaw ma ndax foofu baax na waaw xam nga ndax foofu baax na ah, de baax na am na daraja waaye dama daan si si alal waaw dafa soppiku waaw ndax ndey de poste yi. di nga am daraja waaye danga daan am poste bi gën a tuuti moom mooy ëpp waaw mer dama tee sant yàlla tee sant yàlla tee ngaa mu ne ma te ngaa xool baykat yi nga xam ni nañ liggéey juróomi weer te bu ñu ko jaayee du ma téeméeri junni ñu dund si at yow nag ñetti weer jot nga am ay million da nga war a sant yàlla ah man ko man de mbàkke maa ngi jégul sax waaw waaye man de yor su bunt bi ku ñëw man di nuyu tam sa ngërëm moo ma gënal na waaw tàlla ma ñaanal waaw bi ma ñaanal jug ma ko sëñ Bas Touré sëñ Bas na ma daal nañu delluwaat ndax loolu doyul bañ delluwaatee mu wax ko ko na daal moom dafa bëgg ñëw di tuub waaw bëggoon yeesaa njëbbal la mun naa ban na ko sëkk de man na ko sëkk waaw boo damaa yeesalaa sama njëbbal ci loolu rek ma ko wax man dama ko natt natt natt ba xam ni kii dara ñoru ko dul sëñ moo tax su ma daan ñëw si moom sëñ bi rek laa daan xeeñtu waaw te fu ma ko gisee rek damay li may wax li ma ko daan wax dama koy wax da ngay dalal xelu taalibe yi seral seen xol. ku doon toppatoo taalibeem la aussi parce que procès yi ma daan dénk dossiers yi ma daan dénk toujours ay mbiru ay taalibeem la wala ay taalibe jàmbur mu woo la ma na ma diw de dama bëggoon nga taxaw ko du sama taalibe taalibe diw la dëkk waaye yaakaar gi mu am si man ndax xam ne dama am naa sañ-sañ si yow moo tax mu seet si ma pour nga régler ay problème am dama bëgg nga toppatoo ko nu mu gën a gaawee. Sëñ Moussa Bachir dafa wax ne man de ma sañoon sama taalibe dina am ngërëmal waajur sama taalibe euh, dina fonk diine sama taalibe ay kilifaam dinañ ko wóolu sama taalibe tamit dina ràññeeku ci taalibe waaw te ak taalibe balaa nga koy doon da nga doon jullit xàqam soog doon ab taalibe dafa am loo xamee ni. saa yu ne dafa daan feeñal waaw fu ñu mës a nekk di jàng moo xam ñuy jàng xasee wala alxuraan bu waxtu julli jotee daan bàyyi la ngeen def dañ julli si. suñu digganteeg moom xaw naa yàgg ndax nekk na ma sañ sëñ Basiru juróom-ñeenti at doon nekk moom ñeent fukki at benn yoo xam ne fu ma ne moom fa yóbbu. doo ngay tarbiya itam ni mu leen daan def bu nooree mu di leen mu di mu di mu di yóbbu leen fi barab dajale leen fa. ndax bañu taxawalu bu nawetee mu di leen liggéeyloo tayit liggéey bi mu leen liggéeyloo itam da leen di taxawu di leen seet mu sëñ Moussa moom du def du def lu mu xamul lu ko waay di defal dana ko xam ndax nan koy defee moo la koy wax te itam boo ca defee loo ca war a def muy moo koy dindi boppam kenn du ko defal loo xam ne nii bokkut ak na mu ko bëggee bu dee tabax ak bu dee kër gu muy natt ak bu dee dëkk ak lu mu mën a doon day wax nii laa ko bëggee te noona dana aw yoon góor kenn ku koy mën a dindi mën faa def lu ko gën du am. koo xam ne kii doomu aadama nga mbaa nga xam sëñ Moustapha Bassirou xam nga ko ci moom as la ab jullit la ab taalibe la ku bëgg la ku bëgg bokkam la ku bëgg taalibeem la ku bëggu nitam la fii di gis naa fi mm, mu taxaw fi ay taalibe taxaw boo xam ne bii bu ci yemoon nit doy na ab taalibe ak àllaaxira ndax taalibe mun mu soxla nga taal sa oto yebal sa doom ba nga yebal sa jëwiñ la ci war nga def ko bu ko bu ko bi ci tëj bari nga wax bañ tijji ko la ci war nga def ko ci loolu jëm si musuwaar ko nat xelam ak xalaatam foo ko nat seet rek weesu na ndax da ngay dem da ngay dem ba defee ni ba katam ba katam xel da ngay dem ki li muy wax yalla ko wax lo ba muy def yalla ko def nga demaa demaa dem ba defee ni kep ku mbokal Serigne Touba xamna Serigne Touba lo xamul ba man ci lo xamul ba mu def ci lo dibul te dara muy ko nag lu ak taalibe lim am lépp ci ci sëñ Tuubaa la ko ci la ko delloo lépp lu ko sëñ Tuubaa defar rek delloo na lu loo xam ne nii technicien la la sëñ Abdou Lahat ne ah, yomal xayaam day bàyyi naa ak sëñ Tuubaa nun tëri bi sax ñu ko war a njëkk wax ndax koo xam ne kii suuf nga jëm sëñ Moustapha ko sa yitte matee mbaa sa tëri mat ko defal na loo xam ne lii kenn defalu la ko loolu nag mm, dañ dañ koy dañ koy sant yàlla ndax lii sant gi moo moom ànd ak ku mat ànd ak ku mat ku mat àndal boo boo boo boo manqué mu matal boo matee mu dolli la kooku moom yàlla defal na ko suñu Moustapha si ñu ànd ak ñëpp noonu la àndee ñoom kenn ku ne lu war moom defal na la ko bokk bokk fa mbokk yi la tàmbalee Mbaaxul Saalum Kajoor Bawal Njaamur foo fi dem la waaja ne woon Kajoor ba Njaañ foofu ñu ne sëñ Basiiru nee na waaye koo fi dem ci teel suñu soir da ngay wax li ma suñu soir defal moom. jàngalekat la woon ku ko ku ko topp de ah waxuma doo juum de waaye juum du la yomb.